di Soxna Fall bokk ci mouvement opposition engagé bi mu ko gisee dafa tiit daal di woote euh, euh, bëgg wax rek xalaatam ci mbir yi ak euh, bëgg laa ñaax ci li nga xamante ne tey yow yaa ngi ci mu nekk mbirum média mbirum di wax li nga xamante ne boor bee dañuy kontaan boor bee du kontaan donc mu amoon ay kàddu yu mu ci bëgg yëkkati rek ñu déglu ko Soxna Fall ñu ngi lay nuyu. yaa ngi ci jàmm. Abdou ñu ngi lay fay euh, ginnaaw bi nga gisee bataaxal bi Abdou Nguer partagé nga woo ma ma ne la euh, noonu la fa demee mais dañuy xaar ba ndey mbill gi nettali dëgg-dëgg euh, ni mbir yi demee nga door a mën a woote pour ñu ñu xam yow it loo ci wax loo ci xalaat. muy Abdou Nguer moom yàgg nañ koo menacé. Mhm. Abdou Nguer yàgg nañ ko tëgg. Abdou Nguer chaque jour man heure bu génnee dama naan est-ce que bu génnee duñ ko jàpp wala bu génnee duñ ko gaañ. Mhm. xam nga loolu képp koo xam ne yaa ngi opposé ñii yaa ngi koy bàyyi xel. Mhm. ak foo nekk yaa ngi xalaat na man sama ginaaw bu may dox sax dama war di gestu. Mhm. ndax mën nañ ma dóor balu bopp wala mën nañ ma dóor kur wala mën nañ ma jàmpaaka wala mën nañ ma tëj. man uniforme bu may def bu may ñëw yow gis nga damay gàddaale sama mbuus. Mhm. su ma ñëwee buñ ma nee jaaral ñi ci oto bi muy gàpp sama mbuus dugg ci oto bi dem central la ma dem seneen mhm. dama koy préparé. ndax ñi ñuy opposé mu ñoo toll foofu. ñii ñuy opposé ñoo toll foofu dañ ne woon démocratie am na fi amu fii tay la tey la sunu réew gën a ñàkk sécurité mhm. ndax su fekkee na yow da ngay def da ngay wax sa réew ngay défendre mhm. di wax leen nekkul ci sa réew te ñu yore réew mi tey nanguwuñu loolu mhm. kon muy Abdou Nguer muy man muy kenn mooy keneen ba ci yow moomu dañuy defe ne opposant nga te yow nekkaloo fi kenn surna kuy liggéey mhm. dama ñu bàyyiwaale xel ñun ñuy wax bu ñu amee lu nuy def nan nu def doon dañoo opposé ñoom ba jot réew mi mhm. ñun dañuy wax ci réew mii ndax fi lañ dëkk mhm. ba nu juddoo ba léegi génnuñu Sénégal Sénégal lañ dëkk amuñu nday Guinéen amuñu ay bawal bawal lañ ay dëkk ci dëkk bi juddoo ci dëkk bii kenn ku yàlla sàkk nag nga yore nguur ki fi jógee kii fi nekk mënoo ñoo tee wax suñu xalaat ñoom li ñu wax fii ci Sénégal Abdou Ngar du ko wax li ñu fi saaga ay nit Abdou Ngar du ko saaga. Mhm. li ñu fi wax ci lu ñaaw Abdou Ngar du ko wax. Mhm. man mii duma ko wax kon moomuñu nit ñi bay menacé nit ñi ak attaqué nit ñi man sax suur ba Abdou Ngar defee émission bennam du ma raw ci benn télé saa bu ko defee ba génn dama naan Abdou Ngar mii dama koy ñeewante heure bu génn mën nañ ko dóor bala bopp. Mhm. ndax ñi ñuy opposé ñoo toll bopp mënuñu tolooree. xam nga ñun mënoon nanoo muñ. dinu wax lu ñaaw dinu saaga dinu menacé ñu muñ ko waaye ñoom mënuñoo muñ li ñu leen di wax te li ñu leen di wax sax suuf ñu koy seetaan émission bu ba def danañ ko seetaan bu Abdou Nguer def danañ ko seetaan ñooy cible bi gis nga man ak Abdou Nguer ñooy opposant yi ñu gën a bàyyi xel Mm-hmm. heure bu nu paree lu ñaaw la ñuy dégg lu bon lan nuy wax la ñuy dégg ñoom mu nu mënuñu ñëw tere opposé nee naa sama yow njaboot. Mm-hmm. suñ ma suñ ma rayee suñ ma rayee na ngeen xam ne dañ maa rey ci opposant sama réew laay kaasal. Mm-hmm. buñ ma tëjee na ngeen xam ne ci sama réew laay laay kaasal kaasaluma keneen. ñun ay opposant lañ. dañuy opposé ba dugg boîte vocale baye boo buñ mënee menacé wala ñu mën a rey wala ñu mën a tëj baye boo ñu pare. man de jigéen ju ciy xeex ak man na pare góor gu ma ciy def dara it bu jàkkaarloo ak man def ma ko waaye wan bu bu ma la bàyyi ba ma wan la ginnaaw nga def suñu jàkkaarloo ma duma la mm-hmm. booy góor ngay jigéen mm-hmm. ndax man ma leen na pare mm-hmm. pare naa fu may demit dama yóbbu sama ngànnaay xaw ma man ngànnaay laa yor waaye ba ngaa pare pour def ma dara man pare naa pour def la dara ndax ñii ñu amal affaire ñoo tax ay wéyu lañ ay bande lañ ñi ñu àndal ay wéyu lañ ay bande lañ ñi fi nekk ay wéyu lañ ay bande kon Abdou Nguer pareel sa bopp tamu leen baal soo leen baalee bu ëllëgee danañ la defaat lu raw lii war ñu defaat ko keneen man damaa ngi fi émission bu ma war a def danaa ko def te bu ma ñëwee dinaa ñibbi ci jàmm ku am fit attaqué ma moomu ñun nit ñi barki démb boo njaay benn paa. Mhm. seen seen benn chef de xooma chef euh, imaam la xooma bokk ci ñoom. Mhm. naan nañ dooleel dinañ def nii laa maanaam kii imaam moom imaam bii fa mu nekk. Mhm. waratu faa tudd doom waratu faa mayab sëy waratu faa jiite. te ci ñoom la bokk. mas ngaa benn imaam bu mas a wax lii mu wax. en tant que royukaay ñépp naw nga taxaw naan nañu dooleel ñii ñu def nii nañu dooleel ñii ñu def nii léegi ñun ñu ñu dooleel nag la ñuy def suñu président bi tout le Sénégal mooy sa président ñun opposant yi mooy suñu daa mu neex mu naqari. Mhm. doole wut wut àtte wutub xeex. ñu jël premier ministre bi teg ko ci sunu karam rek mu yabal ay nitam ak ay ay imaamu saytaaneem. Mhm. ñuy nekk ci ci ci télé yeeg rajo yi di menacer nit ñi waxaguñu. man fu ma man télé yi laa bëgg ñu invité ma ma yekk leen belengaan ba xam man nit danaa génn nit karma am déet ma karma rey hmm? man ngay góor ngay jigéen ku ma kar danaa la rey man bala maa kenn rey ma rey la ku ma la ma waxoon lay waxaat boo ma tëjee lu mu yàgg-yàgg danga ma ba damay opposé hmm. damay opposé ba dugg bu avocat ay milliards ma ko nguur gi doon jox suur naa ko damay leen di opposé bu ma ci dee fekkee ma dee bu ma ci rey fekkee ma ñu rey ma lu ma ci waaye mën a def baax na damay opposé lu ma ci dégg nag baax na damay opposé ab nger pareel wutal sa matuwaay bu ma sëkk fooy dem wutal sa ngarnaay bala laa nit a rey rey ko hmm. waaye nag ay sot bu doon kenn kase la di nga mën a xam ne ngay def waaye ay ñaar ak ki ñett ñu di la sax ay góor jigéen lañu moo taxit soog dong la ñu mën a def ñu ngi lay masawu nag di ànd ak yow naqar wi mm-hmm. ndax fi ne liñ doon bañ naan Macky Sall dafay néewal nit ñi doole loolu mooy bëgg taxaw mm-hmm. ndax ñu demee ba ay ministre naan na na na na riir a riir mm-hmm. ay imam toog fee naan nañu dooleel ñu ñu nekk jàkkaarloog opposant bi mun naa ah, mën ne ko ñi ñoo ñàkk jom booy wër ñu ñàkk jom na nga yegsi ci ñi man soxna Fall nag naa ko wax moomuñu nit ñi nit ñi dañuy opposé. d'accord. ñu ñu ngi lay ñu ngi lay remercier. waaw. merci beaucoup xëy na ci actualité bi bu laajaatee ñu woowaat la rek dinañ la woowaat incha allah bu neexee yàlla suñu borom. man ngeen woo ma ma wax man damay opposé te damay ñëwaat taxaw foofu. d'accord te maa ngi ci ginnaaw Abdou Nguer nag di ko défendre. d'accord fu mu kupp dinaa ko fay. moomuñu nit ñi. Mm-hmm. Abdou Nguer ci dëkk bi la dëkk. Mm-hmm. du doxandéem day wax xalaatam. d'accord. fu dee ku génn wax génn ko waroo wax nañ la rey boole koog sa gang ak say wéyoog say bandi na ko dem leen rey nan rey ñëpp bañ jeex waaye nit ñi dañuy wax. d'accord ba ci kanam. merci beaucoup Abdou soxna Fall dugg na ci combat bi ndax moom it opposant la opposition engagée la nekk moom bi mu gisee bataaxal bi ci la ma woo ma ne ko da ngay xaar tuuti su ko defee ndey mbill gi nettali ko donc mu ngi noonu yow loo ci yokk balaa ñoo jàll ci actualité. non ma leen ma koy wax na xelam dal rek. Hmm. te xamni do ragal ay Abdou ngeer Abdou ngeer yow dal gone Mbàkke di fréquenté Pikine xam nga ne nak wa boy Pikine ma fekk may nelaw waaw ah, de amna na waaye nag rek parce mm. que man du caage sax mm. euh, dal biñ dal sama kaw mm. ci lay santé yalla mais man mom mi jëloon ngannaay ñew mm-hmm. ba yalla jël ngannaay li dugal ko sama loxo mm-hmm. gërem na yalla deug la ndax mënon nañ wax leneen sante ndax euh, fogg na ni dal heure bi mm-hmm. man la waroon naan ñi ngi ñi ngi koy jagat jagatee di yóbbu police ak gendarmerie parce que nag daa am loo xam ne. Mhm. Euh, du ko seetaan moom. maanaam te nag képp ku ko ci jéem bu bu ngànnaay li mujjee sama loxo bu nit ñi yeexee moom dinaa lijjantil sama problème sama bopp sant naa yàlla bu baax daal. sant naa ci yàlla problème boobu boobu Sonko da koo tere ci képp koo xam ne si nit jóg na yor arme pour gaañ la boo jëlee arme bi rayal mu dee légitime défense parce que nag bu la bu la toog bu yéeneem jokkoon tey du ma toog fi def sens discute waaw dëgg dëgg bu yéenam ant woon rek mhm. yow dañ lay woo ñu la sens discute bi du am ndax Abdou Nguer a ngi hôpital soit Abdou dóor nañ ko dee na allahu akbar parce que chef bi mu yoroon ku xam mhm. chaîne yooyu boo ko lemee mhm. luy xëcc oto boo ko lemee bu ko dóor nit dang ko bëgg ray ay nak nag sant naa yàlla. Mhm. bu baax. donc yalla na yalla na yalla na yàlla dolli xép parce que dóoroon moom mu dóoroon ma xam nga mu dóoroon mako ma dé mu gëna a sedd ma dem dóor ko ko mu dé mhm. lool lay santé yalla mhm. deug la donc sant yalla donc euh, ci incident yu melni yal na ci yàlla musal daal musal ci mboole mu kuy toog ci télé yi di wax te ñu xam ni démocratie ñoom ñoo ko doon jooy ñoom ñoo nekk au pouvoir nañu bàyyi nit yi wax seen xalaat ndax boobu léegi kenn déggu la nga xaste kenn déggu la nga saaga kenn déggu la nga def appel à l'insurrection kenn déggu la nga ne nañu jëli jomaay kenn déggu la nga saaga donc yaakaar naa sa xalaat rek ngay wax te wute naa. non même yooyu yëpp bu ma ko waxee am na ñu ne ci réew mi mën koo régler. mais da ko waxul waxut. fii réew mi waxuñu ci fii réew mi kenn du. xanaa xamoo yow Abdou Nguer yow ñu tey boo fi waxoon njombe nii léegi balaa émission bi jeex ñu fekk la fi. waaw dama moo tax man la kon ñooñu nañ leen bàyyee ñoom ñoo koy réglé. waaw parce que dañ koo waxul na duñ nangu benn samba boy ni ci àll ba di wutal nit ñi limite. waaw ah, loolu di dëgg la. loolu du fi amee de. waaw ah. tey lii nii nii. Mhm. daf may gën a xabtal seen kaw. Hmm? day tax ba bu ma naroon a xaw a bàyyi desserré étau bi sax du ma ko bàyyi. te ñoom xam waa booy bi xamul def na lu xamul sax fan yi dina gis beneen dangar bu ci man xolam bi dina gën a dagg te fii nag sama yoon la bu ko neexee chaque jour ñu daje fii xam naa kii fu ñu daje fu nit ñi nekkul lu baax ci moom bu ko neexee nag chaque jour mën nañuy daje fii de amul problème. doy na waar. waaw bàyyi mu sedd bàyyi sagam dem nga ba ci yoon. na yoon def liggéeyam rek euh, li ci war ñu def ko donc ñu jàll ci beneen actualité mooy euh, déclaration bi nga xamante ne euh, première ministre def na ko Colobane keroog ci sasu discute bi passé waxtaanee nañu ndaw yi li ñuy jooy ginnaaw waxtaan bi nag dafa mel ni moom dégg na waxtaan bi ba tax